Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf AstraZeneca di ñàkkub anglais gi ñu tàmbalee gaafal ci réew yu bari ci àdduna bi journal L'Observateur moom la xëyee ubbil yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne ñàkk la boo xam ne Angleterre la bawoo aaru ci coronavirus bi moo ko tax a jóg waaye am na lu mat fukki réew ak lu teg yu nekk ci àdduna bi yoo xam ne dañu koo tegandeegam ci suuf jëfandeeguñ ko ndax dañu caa gis lu dalul seenum xel fii ci Sénégal it ñoo ngi wax ci réseaux sociaux yi ne ñoo xam ne ba ñu ci ñàkkee seeni mbokk yëf yi leen saafara su juraat jàngoro la mu di xibaar boobu L'Observateur nee nañu ñi séq wàllu wér-gu-yaram gi ci réewum Sénégal ko bañ bañ nañu ko ba ñoo ngay wéyal bu baax a baax campagne bi ñu def jëm ci ñàkk askan wi ngir aar leen ci mbas mi Le Quotidien nañu ak loo ci mën di dégg daal moo di AstraZeneca gi moom kaal réewu tubaab yi ñu ci bari suspendre nañu vaccin bi journal bi nañu fii ci suñu réew di Sénégal docteur El Hadji Mamadou Ndiaye directeur de la prévention wax na ne amaguñu benn jafe-jafe ci vacciné gi ñuy vacciné nit ñi mu di lool ci gis-gisu journal Le Quotidien am nag waroo ci li tukkee ci gëstu bi nga xam ne BPE mu di bureau prospective économique bu mu baraagloo bi def ndax ci jàngat boo xam ne ñoom waa BPE def nañu ko li mu wane moo di fii ci Sénégal téeméeri nit yoo fi jël fanweer ak ñett yu fekkas lëf ya yi dese nañoo sawar ci ñu ñàkk leen ngir àl ci coronavirus bi ñàkk bi waral coow leeg mbambule di AstraZeneca la tribune mi ngi laaj ndax duñu yegg ci suspendre ko ci réew mi ba jëmmi jamono rawatina bi nga xamee ne réew yi tubaab yu bari ci àdduna bi ñoo ngi koy moytu la kay nañu AstraZeneca moo di vaccin bu bari coow réew yu ci mel ne France Allemagne Italie Espagne Danemark koy waxal ba tax gaafal gi ñu koy gaafal mi ngi gën di law immunologue bi di docteur Tanaxa Njaay Jéy di wax ci xët mu njëkk Soleil national wax juy dalalum xel ci vaccin AstraZeneca bi li mu gis moom docteur bi moo di campagne bi ñuy def ak vaccin AstraZeneca waree su ko dakkal dañu ko war a ñu wéy ci journal la Témoin sang bu tedd ba ca Touba di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des mourides moom la journal bi xëyee bàkke wi ñu doon bàkke Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick mu di régulateur social Témoin nee nañu Serigne Mountakha Mbacké a sell ak diine yore ji koy pusa bëtu askan wi fu mu xonqe mu ñëw taxaw seen wet coonob askan wi it alalam du ko fekke yéen bi nañu waxuma la yoonu murit waaye Sénégal gi yépp li ñu doon jooy bi ñu ñàkkee Maam Dabax Malick mën nañoo feral seeni ronqañ ndax Serigne Mountakha mi ngi fi Serigne Mountakha mi ngi it ci xët mu njëkk Rewmi Quotidien moo fa nekk moom ak Abbé Jacques Seck ay régulateur social noo la leen journal bi tuddee ñu tudd beneen sang bu tedd bu ñu doon màggal démb ak bërki démb mu di Seydina Limaamu Laay Almahdi lii Quotidien nañu téeméer ak ñeen fukk ak benneelu wooteb Maam Limaamu Laay màggal nañu ko démb ak bërki démb waaye ci kaw aw respect gu mat sëkk ci geste barrière yi ñu digle ngir moytu lu lawal coronavirus gi ca la ñu ko màggale soleil national nañu ci bés bu am solo boobee ci la xalifa bi sàkkoo ci ñi séq réew mi ñu góorgóorlu ba jàmm ak dal gi am ci senegal dara bañ ko yàq njiit réew mi Macky Sall dise ko nee nañu keroog àjjuma ba muy daje ak gaay yi ci société civile gi wax na leen ay dëggam yu wér péng nee na leen chef d'état gi ma doon tax na du ma nangu kenn di wañ sama loxo bu mbir xewee nag nangu naa ñu toog waxtaane ko ba saafara judd ci waaye ab état di yox ci benn faat na waru ko waxi troisième mandat bi yéenekaay bi nee nañu wax na ci ak ñoom ba sàkku ci ñoom ñu arrêté débat boobee ndax nee na leen musuma taxaw wax fenn baa ma wax kenn ne damay def troisième mandat nañu àndandoo liggéey réew mi ndax mënuñu fee nekk fukki weer yu nekk ba fukki weer ñaar yu nekk ñu bëgg a organiser élection ci réew mi njiit réew mi Macky Sall yéenekaay bi nee nañu wax ne gars yi ci société civile gi ne leen nit mënuta nekk cim réew justice réew ma soxla ko mu bañ a dem wuy ji ne muy Abdoulaye Wade di Idrissa Seck ba ci man mi ku ci nekk jaar nga ci bi la justice woowee li nga doon def yëpp danga koo bàyyi dem wuy ji ko